asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan sunu boroom di ñu defal jàmm fi ñu mën a nekk sunu xikma bi nag tey day wax ne maa yu limu shajarata laysa al fas maa yu limuha xaqan an yadal fasi min xachabiha xakim bi nee na lii metti garab gu ñuy gor du semmiñ wi koy gor ci boppam ak weñ gim koy gore loolu du mooko ko metti ndax xam na ne loolu ci cëram la bokk waaye nee li ko metti dëgg mooy eh, njur wiñ def ci sémmiñu ba man koo gor ci garab lañ ko dindee maanaam daal ki koy lor mbokkam la loolu mooy li wolof di wax rek naan eh, paaka ba balay rendi sa waaye koy daas jox noonu xam naa du du loolu du àtte bu général waaye bari na ci jamono ji ñu toll bari yaa na loraange ji dal nit yoo xam ne buñ gëstoo ba xam fa jóge ku ko jege lay doon image ci mbokk wala ci jëflante wala ci ànd loolu rek la xakim bi bëgg a wax yaa nañu yàlla doole dimbali boppam ba dara luy jóge ci ku nu jege du nu wala dara luy jóge ci ku nu sori bu ñu fàtte mukk nag di wax wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam ñuy sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah